am li <laughs> mais maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal jaarama euh, nga daal di ñëw euh, te ku nekk xam na ni euh, Sidi Diop waxoon nañu ni da nga jëli ji woon li nga xamante ne moom mooy trophée ñu bëggoon a xam tey trophée boobu ndax Sidi Diop indi na ko ci réew mi. non jëli ji moom dama demoon contrat playback ak benn association bu benn groupe sénégalais bu tudd Sénégal rek donc ñoo doon def foire Côte d'Ivoire invité ma ma demoon ànd ak sama manager. Euh, demoon pour playback juste contrat playback la ñu fay ma ma dem euh, playback ñëwaat mais dew ma woon pour jëli sant parce que foofu moom yàgg naa fa dem Côte d'Ivoire boobu mooy troisième fois ma fay dem dem naa fekk fa communauté sénégalais yi vraiment ñu am jom loolu di ay liggéeykat di ay bañkat ma fekk fa suma ay jigéen fekk fa suma ay grand frère donc ñu nekk ay bañkat ça montre que ni sénégalais yi sénégalais yi ñu ngi fu ne di daan seen doole ñu ngi liggéey ñu ngi dimbali seen i doom ñu ngi dimbali seen i wayjur donc j'étais j'étais fier de donc de ma nekkoon foofu doon leen bégal amoon na artistes bari Salam Diallo ngi fa woon Adjou Zami ngi fa woon Ousmane Bongo nga fa woon donc y avait plein d'artistes yoo xam ne ñu ngi fa woon pour représenter suñu drapeau yeah. jooju nga xamante moom mooy njàpp euh, ginnaaw bi nga xamante oh, ni demoon na rek ma bañ ci ma bañ wax ci yooyu euh, waaw dañoo ñëw tey donc xale bu soba ngi nii kii mooy liggéey fanta kii ku soba ngi nii <laughs> ku laqalee ngi nii donc dara xew fi man je préfère bien ñu bañ fi nekk di détails yi dañ fee ñëw pour match donc ñu ñu ñu ñu ñu bëgg ci match bi wax ci wax gisa gisaguma fi mu ko waxee candidat waaw non leeral foofu parce que tamit tey bu ñu taxawee ak Sidi Diop faaw ñu laaj non dama ñëw dama ñëw dama ñëw pour football pour dire vrai waaw pour dire pour dire waaw pour dire vrai pour dire pour dire vrai waaw léegi moom gisuleen moom gisuleen benn copain dañuy déglu rek ñu waxtaan ci respect ah. du dëgg dama dugg nii match bi tuutee ci def te damaa bàyyi ndax cër bi ma leen jox du dëgg man ku ne xam ne ni yéen dama leen fonk bu ma leen fekk damay taxaw match bi xaar ma ñëw douze minutes moo ci def mais damay liggéey ngeen ciy jàpp moo tax fu ma leen fekk damay dama leen jox seen bën bu ma fubalul sax baax na parce que lii yombut ñi ngeen mën a xaar ma ñëw ñi ngeen mën a dem jëli yi na mais dama leen di xamal ni pour ñu tëj débat bi njàpp gi leen ko mu déen fenn ni fii di daf ma dàq te bëgguma tooñ doomu jàmbur wala ma koy waxat loo xam ne ëllëg damay wéet ci sama bàmmeel di ko rëcc njàpp sama rakk la sama doom la yaay dégg gisuma ko mu génne encore une fois benn sorte bëgguma juum ëllëg damay gën a nekk mag samay doom dañuy ñëw bugguma di juum ci ay kàddu jàpp xaar ba ma ñëw génn génnul ci benn sorti ne fii di daf ma dàq dàqu ma ko njàpp kenn ëppalewu ko cinq étoiles ni ma nekkee biir cinq étoiles awa amaa mi nekk ko biir cinq étoiles noonu la nekkee biir cinq étoiles fi mu dem seenu magam la loolu nga ma laaj léegi waaw ah, mais Wally c'est son grand frère seenu magam la am déet loolu yéen rafet loo leen ko wala demul ci feenu malien wala feenu guinéen wala feenu feneen bu demoon sax feenu beneen dëkk damay kontaan rawatina nag feen boobu mu dem fekk fa ay magam ku mel ni Amady ku mel ni Armand ah foofu mu dem nag wax dëgg yàlla feenu feenu magam la man ci ci ci ci état boobu laa nekkee te boobu ba tey keroog bi ngeen taxawee waxuma ni demu njàpp foofu daf maa métti je pèse bien mes mots dama ni lee ak lee ak lee laa génnoon rek pour leeral mais ba tey fu lu ñëw ma affaire yu njàpp ndax méttu ma foofu kër magam la mm. war na fa mën a dem ba pare rawatina mu dem fa ñu teral ko ça fait plaisir lépp lu mu fa am yàlla na ko lekk mu rees ak jàmm ndaxte bu amee dem defal yaayam dem defal papam loolu nag wax dëgg neex yàlla bu ma ci iñaanee wala ma soxor ci du ma nit. boo ko fekkoon sax dama cee dolli seenu grand frère am la. yaa ngi dëgg bu dee maa ngi yëkkati di ko jox waale yëkkati di ko jox bërki Demba Ndiaye bi day dem ci Pape Diouf mu yëkkati di ko jox jabaru Pape Diouf noonu la ko bëggee bébé baax ku ne di yëkkati di ko jox waa roof yàqut jën ñun ñëpp nañ ko sotti di ko teral bu yàggee bu ñu beekaw la tabax te maa ngi koy ñaanal sama doom la dégg waa mais foofu di këram ah non vendredi damay jouer vendredi five parce que sam waaw parce que samedi incha allah dama am galaa ak euh, waa banque Cofina bu ma war a jouer foofu ci King Fat Place bu ma génnee ci benn salle bi dama war a duggaat ci beneen salle jouer ak waa Diaspora Awards donc am nañu ñaari gala yu ñu war a jouer wala li ma wax sànq jeexal na lépp jàpp 5 étoiles këram la. waaw foofu këram la. deuxième question bi gis nañu samedi passé. Hmm. sorti bu mu def. ko ci nee na waale du sa maam la. parce que hmm. moom mooy sa baay. ma ko. Ah waaw seetaanuma loolu te waaw mais c'est pas force que dama ko war a seetaan Serigne Saliou Mbacké nee na kuy wane sa ayib nit buy wane sa ayib dalaa bëgg a toroxal waaye yàlla buy wane sa ayib dalaa bëgg a defar man yàlla damaa may ayib bu ma koy waneel damay xam ne dafa ma bëgg a defar waaye nit bu génnee pour wax sama ayib daf ma bëgg a toroxal du seetaan lu may toroxal yàlla mi ngi fi te mi ngi seetaan te day àtte ñaar ñu xeexut seetaanuma ko bu dee moo ko wax ak lu mu ci jublu rek bàyyi naa lépp ci loxo yàlla yàlla na yàlla àtte dund am na dee am na te ku ne di nga njege naa ak fa loxo yàlla na yàlla àtte gars yi je vous remercie. waaw. lamb lamb waaw li nga liggéey ci musique. waaw. jeune nga toll bu ñu waxee di wax Sidi. Omaro génn def benn sortie ne. kii siidi xam na ma xam naa ko su arrêté wu lu muy def dina xam menacé la mel ni ku am ku xamal Sidi dara. waaw xam nga dëkk bi am na yoon. dëkk bi te man dama nekk ci ay loxo kilifa ma koy nuyuwaale ku ci mel ni Mactar Diop Soubatel muy nit boo xam ni euh, dañ naan mag jar na bàyyi cim réew olof Ndiaye ñëwaat ne mag mu baax jar na bàyyi cim réew te Mactar day sama grand frère ma koy déglu mu nekk nit ku baax di ma conseiller ma am nag ay kilifa yoo xam ni ñi ngi ci dëkk bi dañuy yëkkat seen téléphone di ma woo bu dara amee. parce que man it damay am ay soxla wala ma am ay soirée wala ay gala woo leen ñu jënd sama ay table donc ñoom it li ñu am ci man mooy woo ma conseil ma bu dara amee dañ ma naan bu ci wax loolu mu wax encore une fois seetaanu ma ko parce que intéressé wu ma te encore une fois moom la concerné yaa ngi dégg moom la moom la concerné li mu wax te it euh, bàyyi naa ko ak yàlla waaw bàyyi naa ko ak yàlla non non ça ne veut pas dire ça dëkk bi dafa am yoon mooy yow mii di ma seetaan boo déggee wax ju ñaaw xam nga ko kii taxaw fee ci biti bu déggee wax ju ñaaw xam na ko bu déggee wax ju rafet xam na ko lii ma wax nii bu duggee ci kanam tuuti ku ko déglu di nga xam ni xale bi wax na lu rafet foofu laa waxee dëkk bi dafa am yoon dafa am ay kilifa yi ne ci dëkk bi te suñu suñu génération beneen bi ne ci ginnaaw dañu war a di dégg lu baax dañu war man sama làmmiñ bii ñaari gor ñoo ma jur ma juddu ñetteel leen man wax ju laa xam man wax ju rafet rek laa xam parce que musique bii day jeex dañ ko fi bàyyi dañ fi nekk nag di liggéey bëgg ci nag tedd teral ci suñuy wayjur ndax moo tax ñu bàyyi école ñu yóbbu ñu menuisier mécanique ñu bàyyi ko topp suñu liggéey bi nekk ci bi ma ci ñëwee maa ngi doog a def six ans de carrière kon c'est pas évident ma toll fii dama liggéey sa waay fi ma egsi ni tey liggéey moo ma fi indi tëdduma rek di nelaw man lu ma am ci xaalis defaat naa ko ci sama ay répétition lu ma am ci xaalis defaat naa ko ci sama musique lu ma am ci xaalis bu ma déggee big maker tëgg na lu rafet def na lu nice texte dama koy jënd ak sama xaalis ndax lan gir bëgg a gën a persévérer jëm ci kanam donc yenn détails yu bari yonent bi moo ma gën sëriñ Bamba ma gën kene sëriñ Touba dañ ko tooñ sept ans yóbbu ko ci géej gi mu ñëw lan la njëkk def baal naa leen waaye kon baal naa ñëpp waaye baal naa ñëpp dégguma barki dem ba fan laa demoon Paris ci kan barki dem fan laa demoon maa ngi mooma àndoon lu tax laajuma la <laughs> <laughs> ah waaw ma chérie nag waaye bàyyi leen yooyu waaye njàpp njàpp barki dem dem naa Paris Sidi ki invité ma dem naa fa def li may def toj fa ñibbi si Viviane invité na ma euh, nu mu tuddati concert bi mu doon def ma dem fa te ànduma ak njàpp bi may dem bërki dem moo njaay di def seize dates ci Europe bi ànd naa njàpp maa ngi waaj nag yeneen date yoo xam ne c'est en live orchestre bi yëpp dañuy ñëw te bu boobaa nag day dem ah, du ngeen baa nag mu fubal <laughs> du ngeen baa mu fubal <laughs> <laughs>